moom boobu 3 million plus la am nañ xaalis ba pare am nañ xaalis ba pare waaw ci loolu laa bëgg nag nga wéeru nga joxe sa kaddu fii ne xale lu ñoo jooy nañ fomp seen rongoñ am na wax nga dëgg Malick dëgg la jërëjëf Malick kontaan naa ntol kontaan ta ñi manqué dindi wala dunooti Gambie la dunoolam woto ɓaawo gambiya ladunolam gambiya mu fen fen ɓe gambiya fo ka ton ibe ladunomu inti ntol faŋo ñinne fo ko jannin ɓe jam ñenta kilirole kela ŋaaji konko kuwo ke ñaamin aye ke wo ñaama ñindiniŋol ye soksit aduŋ ñindiniŋol ye soksit a fee andu niŋ ala sonta mpareta ñinnen la mpareta la pour ka loo ñindiniŋol fee kaatu ondi sebintinŋol keta jandi ngasamba na division onni na district golle kan ngasamba chef kundal to ngasamba alkal kundal to molɓe koɗol la ɗum kello mum woti sakono ko musol ndol ka mune batu aɗum mal nin ala sonta nin tol jitanam ibalo no ko musolo le ɓengo siita mpareta wolale ñin kabirin kunu ngalon ji waya taren wulta ñenta planol min kela ñenta min kela pour ñindinole soxsit nga be plan ne aɗum nin ala nin sonta meduwara dindiŋol ye ita kayra ena kayra aɗum kodi kuwomi alkamira ni ala sonta ga oɗo onde seventin o keñami keta kelte mbe ñi musol kela woni a fayi tan mbala aɗum ni ala sonta yaye compinol min alke kumandi mbiye be killal ena mo moñenta min lala ibalala mo mo moñenta min kela iba kelal ni ala nin kila suntantena dindiŋol bulalawol ñaman ndiŋol lom ntollaga ñin wulu e ñin damomin ke wol wolkom lefta on damoy ni on damoy naja adu nin ala sondan bita nyin bende na ya port wota kala wota kala problem wota nin ala sonda hanna be kala muta nyin winta fe pare assalamu alaikum wole mo toñalem toña balem bari sandung nge fatu naso fanan soto jang ate abuta west coast radio um, ki ñoo waxtaanal si bokk ci ñi nga ñooy Presentasi, nekk ci radio ye television yi jigen yi bu ga jappale xale yu jigen yi ma laaj la rek ñu doon wax fi ne commencé won ngeen ak football bo len amone ak ñi nga xamne ñoy female artist yi bu lolu passé lan ngeen paré def. jërëjëf euh, ngi ak euh, suñu yaay ñi fi toog yëpp rawatina surtout ñi nga xamanteni ñoo ñoo déglu euh, di ñu sétane bitim réew. ñu ngi sant yàlla buur bi julli ci yonent bi euh, ci muy sanga-sanga yi sant suñu ñaari waajur am mbégte ak kontaante ma daal di fi euh, teewal euh, présentation yi Malick li mbégte la ndaxte jigéen fu bokkul rek foofu du am xorom ba taf na defoon nañ ko ci xale yu góor ñi fas nañ ko def nag pour xale yu jigéen ñi ndax boo ko seetloo euh, jigéen ñi Gambie ñëpp gis nañ seen taxawaay euh, fuñ euh, ci liñ munti nekk rek ñu ngi faa béy seen waal ba tax na nag suñu jiiti réew mi kenn demul bawoo ba ko ndax gis nañ naka la teralee jigéen ñi ba tax na boo ko seetloo sax si suñ government bi suñ vice président bi jigéen la deputy speaker bi jigéen la minister of health jigéen la kon xam nga ne kooku jigéen ñi bàyyi leen gannaaw. Euh, loolu tax na nag defoon nañ euh, football ñu nag artistes yi euh, ñu ngi séntuwaat pour defaat another football match boo xamante ni diggante ñun ak ministres yu jigéen yi ak civil servants yi yu jigéen yi su si loolu weesoo nag fas yéene ñoo am lii di fundraising ak suñ di king of kora muy Jaliba Kuyateh andi Kumare Ban boobu jàppaangum bés dañ ko Um, dañ ko bëgg a def after korité incha allah ba balaa gaay du fi jóge xaalis buñ munti am ci loolu uh, dinañ seet naka la ñoo uh, dimbalee xale yi jigéen ñi pour seen dem uh, wol ko bii nii muy Asabajaan Malick incha allah rabbi duñ ci am benn gàcce yàlla dinañu fompal suñu rongañ te xam naa am naa yaakaar si xale jigéen ñi ne dinañ indi ndam fii ci réew mi Gambia. Fatou Fatou ah, loolu neex na trop pour dégg waaye yaakaar naa ne yéen tamit. dem yaa ngi West Coast du ñàkk ngay yónnee ibaar bi mhm. nit ci di ko dégga ne xale yi mhm. buñu leen fàtte ñu ngi dem World Cup loolu dëgg la Malick euh, euh, dinañ ko bugg di def suñ programme si su nekkul sport sax su def euh, suñ musical show yi dinañ ko in a form of advertisement. parce que dinañ am a special advert boo xamante ni it will be running ba balaa xale di dem um, te dinañ make sure ne xale suñu nekkee Azerbaijan tamit each and everything lu faa nekk ñun dinañ make sure ñu demut ñu munut a gis dinañ ko dégg loolu yëpp njëriñ rajo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kontaan naa lool ci kaddu jooju noonu jërëjëf sa taxawaay am na solo lool yal na leen yàlla jàppale yéen présentateurs yi ak musiciens yi nga xam ne jigéen ngeen pare jàppale xale yu jigéen ñi Mr Mbodj tamit yegg si na fii moom musicien la soo lu ñu def rek ñun dañoo delluwaat cosaan da ngaa laaka aku ma laaka aku Mr Mbodj couché couché yesu I not say you get weight, you're not musician. And you know say we get boku boku of a family them. We have them here, say them pick here, they don't qualify for go play World Cup. Na big thing to them. And I want we use this occasion here. We tell we create family and say we want money for help them picking here. How small is small, that money they will want them. Um, and I want let out talk there, come on, your mouth. Thank you. Malik, Mr. Jones, mm -hmm. and all we crew fumble them na na the Gambia and abroad, and um, even the foreigners themselves, where they inside Gambia, which we where we acknowledge them and accept them as as as Gambian, because anyone you know how the Gambia people turn. We are friendly to all our neighbors, and any foreigner we come inside, we learn. This is a very big, great occasion. We, we try for help. We female under 17 them for raise fund. You know, easy. All man uh, no say he had. And this now now occasion whereby we not say any little thing, we not have any money, anything where you can afford for give, we they beg you. If not dollar C, if not ten dollar C or five dollar C, any amount where you get, even with the expect fifty dollar C, any amount where you get in or small because them picking up we for hold them good because they don't try to they don't go all the way now for go final. I mean, for go uh, through the NADI competition. Uh, yes, uh, NADI competition, and for sure you say are eager for me them win the World Cup Come, that is this make I talk about the final, and I they pray to God. Even um, I they go as far as even the past three nights. I mean, they work heavily to write music, a song.